Eh, Pastef bi doon wax naan ñoom amuñu plan B amuñu plan D benn plan la am A ba Z muy Ousmane ko eh, certains diront qu'ils retrouvent la raison et ils ont choisi Bassirou Diomaye fay <laughs> sama mbokk séeréer bu baax boobu Bassirou Diomaye Faye qui va être le candidat de de de Pastef Eh, tant que c'était Ousmane Sonko mënoon ngeen génne ay dossier mënoon ngeen ko jiiñ lii wax na lii def na lii procès Adji Sarr mais on vous sort sur le chapeau un inspecteur des impôts et domaines très bien structuré intelligent euh, d'une probité morale qui fait euh, l'unanimité man j'entends même j'entends beaucoup des gens du pouvoir dire non Bassirou vraiment c'est un honnête euh, fonctionnaire ah euh, zéro casserole est-ce que jaaxlewu leen. bay mu ne bay mu ne réglé nga. <laughs> waa ji séeréer la. mooy dañu man man a nga réglé nga. sama mbokk problème yëpp bëgguma wax. nga ne xam nga réglé nga problème yëpp. parce que amoon mënoon xamoon naa ne question bi day ñëw mais dama ne woon du ma ci wax. <laughs> mais tu as tout cest à problème yëpp. non jaaxle ngeen. non parce que nee nga. Bassirou Diomaye Faye. waaw ku baax la. kenn mënul am dara lu ñuy teg ci kawam cela veut dire Sonko bi ñu bële dafa am. non non waxuma lool non non a a. <laughs> dama ne tant que c'était Ousmane Sonko waaw waxaatal waxaatal. non dama ne non non ngeen ko génn mënoon bu ñu ngeen génneel ko procès Adji Sarr ngeen ne moo wax lii moo def lii. am na connexion bi dinaa wax ci loolu de mais dama euh, dama lay wax il sort un candidat. non euh, irréprochable. oui cela veut dire que l'autre est réprochable. koo xam ne. Euh, amuloo un élément factuel boo ko mën a. kon on a no yaa ngi gën a suruxal sa bopp. accepter sa erreur boo nee amul élément factuel cela y a des faits c'est un débat. non déedéet non non non attends mais dañ leen génneel candidat boo xam ne. il a euh, le niveau il a tout ce qu'il faut et a l'ancrage Maïmouna pardon ah. excusez-moi euh, Sénégalais yëpp ñu ngi ñuy déglu. Ah. jarul ñi état ci kafar xam nañ sa position ci Ousmane Sonko euh, ak ci en tout cas. xam nañ euh, je n'ai ma ne ma ne yëpp xam nañ ko. Ah. mais bu ci rus. parce que sénégalais yëpp xam nañ ne. ni nga ko fi nga ko teg non fi nga ko teg parce que Ousmane Sonko bii ñu ko jàppee aw benn preuve. euh, pour le moment il y a pas procès que moom moo ko def il est innocent jusqu'à preuve du contraire dossier Adji Sarr euh, kële gis ngeen dossier ba nu mu mujjee may mun a euh, euh, fii amul joxe nañ verdict yaa man maay journaliste bi léegi munu non munu ci terrain politique lañ nekkoon c'est ça les xam nga ci terrain politique lañ non ci terrain politique lañ ah. nekkoon munoo dem tëb di da ngay dugaat ci wax ne dossier bu ñu jugé la faits sur Ousmane ñu mën a retenir non may mun a Sénégal quand te dégg naa la sànq ngay de candidat wu Pastef Pastef du am candidat. Pastef du am candidat mais il sera le candidat. Euh, may mun Maymuna nag Maymuna Maymuna Maymuna. dans tous les cas Maymuna nañu analyser rek xam nga dañuy analyser rek ah. parti association la. Mm-hmm. day amee nit ñu ko déclaré am nit ñu koy dundal. Mm-hmm. bu ñu nee tas nañu parti parce que parti bi dafa am ay activité yu nga xam ne insurrectionnel la ak affaire yooyu day am ku mu dal ci kawam day am ñu ko def bañ jàpp leen Sonko dafa dem CEDEAO ne day attaquer décision bi di suur Pastef parce que xam na ne décision boobu day tax moom du nekk candidat ak képp ku àndandoo moom ci Pastef moo tax mu attaqué. sous la bannière Pastef. non non déedéet non. sous la bannière non xam nga déglu débat boobu defe naa posé naa ko. Ah. ci départ dama ne. parti bu ñu nee parti bi dafa def lu bon ñun ñiy gérer parti bi ñoo def lu bon la. parti association wu nit la bu ñu nee association wu nit ñi dañoo def lu bon ñun ña nekk ci association bi ñoo def lu bon moo tax Sonko ñu inculpé ko ci loolu comme Bassirou Diomaye Faye dañ ko inculpé ci non lan lañ leen inculpé. dañ ko inculpé lan lañ leen inculpé. yéen Bassirou Diomaye Faye. Ah. dañ ko jàpp pour outrage offense à la justice. oui ñu dem ba ci biir ñu dugal ko ci procédure bi. et il est innocent. non may may a pas procès may mun a xam nga. il est innocent il est encore innocent. non waxuma la. justice taxaw àtte non waxuma la loolu xam nga dañoo nekk ci da ngay jàpp ci ñaar dafa am décision administrative bu am ñoom mun nañ dem def recours. mais la décision administrative bi décidé man sama bi décidé que ne Pastef dañ ko dissoudre amatul parti mooy mënatul am candidat mooy ña fa nekkoon responsabilité bi. xam nga da non laisse-moi laisse-moi non Maïmouna. aucun candidat de Pastef ne peut concourir. non Maïmouna je Pastef ne peut concourir. non je waaye militant de Pastef bu ko neexee il peut se faire porter par un parti légitimement constitué. association boo koy créer day am déclarant. am ñu koy gérer ñu jël seen tour bind ko bu parti boobu bu ñu nee ñoom fëtti nañu ñoom responsable yi ñoom ñoo fëtti responsable ñoom ñoo fëtti et li ñu reproché Pastef ni mu rëyee kenn du ne rek Pastef daf ko def rek dañ koy bàyyi dañ leen di jugé hmm. te décision administrative tey suñu texte ni mu parewoo c'est une décision administrative mooy mooy dissoudre décision administrative boobu bu dissoudre lii dal ci association bi mooy ñin ñi nga xam ne ñoo def. ñooy gérer association spécifié. non spécifié non yow non yaa ngi ñëw ci poursuivre. ak ah. loolu c'est volet judiciaire bi la man ci volet administratif bi te élection yi fii candidature accepté kook affaire boobu c'est c'est des décisions administratives. et cette décision administrative là ku fa jum bokk ci ñi dirigé woon sa so euh, euh, kii mu nekk da nga koy am maintenant nee nga mun nañ def recours nag devant la justice mais la décision administrative elle est claire nette et précise ku bokk ci direction Pastef mu notoon am ay activité politique ñu reconnaître ko tant que réglé wuñu affaire boobu boo demee justice nag ba justice jugé. mais da ngay tijjiwaat front. non non déglu ma la tijjiwuma benn front.